ak sëñ daara bi nga xam ne moo ko doon jàngal muy sëriñ Seexuna Siise ñu dëkk fii ci Touba may wax ne gis ngeen ne xam-xam euh, ak alxuraan pas-pas moo koy téye pas-pas pas-pas ak pësteef ñooy téye alxuraan alxuraan su ma nee pas-pas mooy ngëm-ngëm su ma nee pas-pas mooy yéene ju rafet su ma nee pas-pas mooy jëf ju sell su ma nee pas-pas mooy dëggu ci li ngay def su ma nee pas-pas mooy sa diggante ak sunu boroom tabaaraka wa mbokk yi kiy dugal doomam muy jàng alxuraan na yëg ne doomam dafa war a jàng alxuraan muy doomi jullit waaye bum ci fas dara bum ci fas yéene na ci yéene ne doomam dafa war a jàng alxuraan mu dem jàngaloo ko alxuraan jàngale kiy jàng xale bi nuy jàngale tamit dafa am ñoo xamante ni ñoo ko war a taxawu muy waajuram ak sëñ daara bi koy jàngal yooyu nag benn bu ci manqué rek li nu ci bëgg mën naa bañ a am war na noo am jàngalekat bu farlu boo xamante ni bu mën a jàngale lay doon li muy def mu xam ko man ko loolu d'abord moo bokk ci li jiitu beneen bi ci des mu am yéene ak pas ab toog jàngale euh, waajur wi na doon koo xamante ni ku farlu la ku mën a nemmeeku doomam ci lii muy def fan la ci toll te luy tax mu mën a jàng te war a jóg ci moom bàyyi ko ci moom xale bi war a mën a toog war a jàng loolo na ko na ko ittewoo xale bi na doon ku neex xel ak koo xamante ni ku nangoo dégg ndigal la waaye ku nangoo yaru la ku nangoo jàngal la loolu sax ñaare néew na lool mu bari am na boroom xam-xam bu mas a dem ci daara ne ah, ah, wax suñ daara ba ne ko ana xale yi mbaa ñi ngi nangu nanoo jàng mu ne ko déet xale du nangoo jàng ab jàngalekat mooy nangoo jàngale waaye xale du nangoo jàng bu ko defee yooyu bu dajee résultat mën naa feeñ ginnaaw yàlla bari na ñu gis tey président Macky sàll mi ngi jaar ci soxna Ndate Cissé mi ak Serigne naa siise am na ñoo xam bëggoon nañ koo gis ay ati at mënuñu koo gis waaye soxna Ndate mii tey moo tax ñooñu gis ko moom gisewu ko ci pexe waaye ci pëstéef la ko gise pëstéef mooy lan mooy itteem moo kawe ba tey ñépp mën a toog mu woolu soxna Ndate ñépp taxaw ña fa daje ñépp mat ko ay baay ñii di ay maam ñii di ay waajur mu dem ba taxaw moom mu jox ko ab médaille boo xam ne daf ko koo jox ci darajey alxuraan ak darajey réew mi loolu jàpp naa ne góor góorgóorlu moo ko mën a may moo tax nit ñépp bu nu xoolut seen bët ci àgg fa ndate àgg nan xool seen bët ci ne war na noo siggil seenam réew war na noo def loo xamante ni effort lay doon ba tax ñépp xam leen xam-xam dafa am solo lool dafa mën a yóbbu nit fu sori borom xam-xam yi sax dañuy wax ne xam-xam mooy fekk askan woo xamante ni ñu bari dañ leen a desaloon ginnaaw xam-xam yëkkati leen ba àdduna bépp xam leen <clears throat> kon nag moo tax xam-xam jërut foye réew moo gis mu ëpp la xam-xam ëpp la gone yu nangoo jàng xam-xam wala nitu xam-xam <clears throat> réew xamal ne réew mu jëm kaw la réew moo gis seenu nit fonk seeni borom xam-xam xamal ne réew moomu réew mu kawe lay doon bu ko defee sëñ daara bii di sëñ Seexuna ku nekk xam na ak dogoom ak pas-pasam ak pëstéefam ci jàng alxuraan ak jàngale ak man koo jox àqam ak man koo jox lépp lu mu laaj su ma nee jox àqam mooy ci taxawu xale yi ak ci saytu leen ak ci ñu jàng ak ñu yëg ne dafa am lu leen indi fii te responsabilité bu rëy la yëg ne moom la yor loola bokk na ci li koy jox yéene ju sell ji nag moo ko indi fii tey waaye yéeneem du woon yéene damay fexe ba sama xale bi dàq jàng ci réew mi wala bitim réew mu dàq cee jàng waaye yéene ju sell la tax bokk na ci soxna Ndate mii tey président Macky sàll gone gu nekk jàpp naa ku nekk bëgg nga gisanteeg tooganteeg président li ko may lu du lenn lu du farlu gum farlu ci nangoo jàng ak nangu koo jox itte ak doon koo xamante ni nangu na ñu yar ko waaye nangu naa ñu yar ko maanaam ña koy yar waaye nangu na ñu yar ko kon kii jàpp naa ne tey siggil na réew mi joxe na tamit leçon boo xamante ni képp kuy jàng ak a jàngale yëg nga ne leçon la sëñ daara bi tamit yëg ngeen ne sëñ daara la boo xamante ni bu jara sargar la suñ doon wax tey kan moo daq dàq jàngale alxuraan daanaka dañuy xaw wax ne bokk na ci mérite biñ koy jox moom sëñ daara bi ci ñi dàq jàngale fii ci réew mi ak bitim réew sax ndax biñ demee bitim réew ñoo séddalee ne kii lim soxla woon ci njàng ak xam-xam ak alxuraan moom dajale na ko su ko dajalee kan moo ko ci def muy ab sëñ daara moo ko ci def loola jàpp naa ne lu kii la beneen bi ci des muy soxna sii di soxna ndate jàpp naa ne am na ñu bari ñoo xamante ni dimbali ne leen tax ñu gisaale président ndax bu dul woon loola lijjantiwaale nay tamit problème mu daara bu lijjantiwul lépp tamit tax na problème mu daara li xaw a am lu ci lu ci président jël sar moo tax sëñ daara yi jàpp naa ne démb sargal gin ko waroon a sargal sax des na ñoom moo tax ma ne xamle dëgg-dëgg soxna si te teraanga jooyu yàlla moom moo ko fa indi loolu président yàgg nañ fi ñoom yàgg fee jàngale waaye alors ndaje mu mel ni mësta am kon garaas soxna Ndate Cissé grâce sëñ Seexuna Cissé ñoom waroon nañu puukare woo bu baax a baax sëñ na waaye waroon nañu puukare woo bu baax a baax tamit soxna Ndate ndax loolee ñu fa am ak kilifa yu bari am na fa ñoo xam ne dañ caa doxaale sax yorunu daara jàngale wun waaye fexe nañ ba gisaale président xañ ne lijjanti fa seeni problème wala seeni itte yoo xam mu nga jaaree ci soxna Ndaté te ñoom duñ woon jàngalekatu alxuraan moo tax alxuraan ku ci mooy mooy buum gi gën a dëgër mooy buum gi nga xam ne tamit ko mooy la jëmale fenn lu dul fa nekk fa àdduna nekk da la fay jëme waaye fa teraangay nekk da la fay kon na ñëpp gestuwaat alxuraan mooy ci buum gi buum googu mooy buumu xurwatul wusxaa na ci ñëpp téye te xam ne mooy buum goo xamante ni du dagg du du du du buum la goo xamante ni ku ci jafandu xamal na mooy nga ci lu wér a wér ni sëñ Tuubaa waxoon ne waxoon ca baytamu séema masikan bil bi maska darir ni biyadil xaahidil basir lil muhini maanaam gumba gi nga xam ne dafa jàpp ci tum bi day jàpp ne moom lii mooy àdduna mooy jàpp ne ni fii moom bu ko woccee rek problème am ci moom kon nag noonu nga xam ne gumba gi woccee tum bi xam na ne problème yi am mooy dina réeroo ki ki ko doon wommat mën naa dem oto mbëkk ko mën naa dem leneen dal ci moom mën naa daanu mën naa def lu nekk mën naa daanu ci kàmb loola nag la jàngalekat bi war a xam ba moom tamit wërta wacc ci alxuraan loolu la jullit bi war a xam ba wërta wacc ci alxuraan alxuraan da nga ko war a téye ci sa bët téye ko ci sa euh, xel téye ko ci sa nopp téye ko ci sa pas-pas mooy li ma doon wax beneen bi ci des président nee na dafa euh, wala boog ma mujj njëkk mujj boobu beneen bi ci des président xawma lan la décoré soxna Ndate wala lan la ko jox comme cadeau waaye li mu tudd na jox na ko sëñ daara bi loolu moom tuuti na lool lool lool lool président nag gestuwaat wala ñi koy conseil nan ko wax ne ko lii nga jox sëñ daara bi tuuti na barki démb ñi fubbale woon ay millions la leen jox ak i terrain te ñoom dañoo am ñu leen doon former am ñu leen doon jàppale ñu jël suñu xaalis ba yóbbu leen waaye kii dafa nekkoon ci si di def dara ba indil Sénégal ndam lu rëy rëy rëy ndam lu rëy kon nag nanu xam ne wax dëgg yàlla moom yeeyoo na lu ëpp lii koo xamante ni moom moo nekk ci si ruqam formé ab xale mu dem ci réew yoo xam juróom benn fukki réew la wala juróom fukki réew yoo xamante ni mu indil ko ndam la di xale bu ndaw toll ci fukki at ak juróom wax dëgg yàlla loolu ndam yàpp naa ne président war naa xaw ma lu mu jox soxna Ndaté waaye li lay waar rek ne la lam ko joxit xañ na des na mooy lii mu jox sëñ daara bi sëñ daara bi lim ko jox tuuti na un deux millions yi mu war tudd loolu moom tuuti na lool lool lool kii waroon na koo fexeel lu mu néew néew kër ak xaalis boo xamante ni ëllëg dana mën a fer former lu mat téeméeri ndate ci benn année wala mu former lu mat ëpp ñaari téeméeri ndate kon nag jàpp naa ne ñi koy conseil war nañ koo wax ne ko kii li nga ko jox tuuti na war donte nag alxuraan lu ko waay def teraanga rek beneen bi ci desaat mooy président nee na dafa bëgg ñu organiser li nga xam ne moo di le vingt-huit bi ñu jàpp ko mu doon ndaje moo xam ne ndajem alxuraan lay doon euh, jàpp naa ne lu rafet la toog di waxtaane alxuraan wax na tamit dina génne ci budget bi lu toll ci euh, budget bi jëm ci wàllu njàngal dina ci génne six milliards yoo xam ne da koy def ci daara yi lu baax la lu rafet la bu dolleet ñu jël beneen bi ci desaat mooy président nee na dafa bëgg organiser lu mel ni grand prix chef de l'état loolu nag man xaw naa cee jaaxle tuuti ndax li tax ma jaaxle ci mooy réew mi ñu nekk day réewum lay président dafa jiite mais du état Sénégal état islamique la yor kon su bëggee wax ne day jiite loo xamante ni euh, ci layig lan nekk ne day organiser loo xam ne l'islam moo ko tax jóg dëgg la lislaam moo fi ëpp euh, ci wàllu li nga xam ne mii jiitewut état l'islamique naar yi di organiser lii ñi ci ëpp ay état islamique la moo tax ma jàpp na loolu moom jàpp naa ne ah euh, waxi buur nag waaw la sant waaye jàpp naa ne état islamique la ci xam naa buñ ko ci xoolee bu fekkee lu mën a nekk la nag kenn du ko ñaawlu moom waaye dama jàpp ne rek état bi bu fekkee noonu lay doxe ah, euh, loolu daal benn laaj la boo xam ne mi ngi jëm beneen bi ci des ñi demoon imaam yi waxoon naa leen bu nu demee nanu fexe ba rendre fa hommage seen mbokk seen imaam yi nga seen jàngalekat alxuraan yi nga xam ne nelaw nañ ci jamono jii wala kii ndax dégg naa fa ku wax ne imaam sàng wala jàngalekat alxuraan boo xamante ni dafa feebar te imaam nee na président nee na ñu jël cordeneem ndax ñu jàpp ca waaye ban demee waroon nañ faa fàttaliku ku mel ni imaam ndaw mi nga xam ne jàngalekatu alxuraan la amoon ci pëstéef ak keneen ak keneen Moustapha Guèye ma nelaw ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñu waroon nañ leen faa tudd ci kanamu président ne ko ñii suñuy nattangoo yu fi nekkoon lan ñoom ñii dañoo dem Mbayang Daraame ma nga xam ne moo jàngal Xadi Daraame Xadi Daraame Xadi Daraame Mbayang ma ko jàngaloon Mbayang moomu fi mu toll dafa faatu Mbayang moomu dafa faatu ci at yi te moom moo jàngal xale bokk na ci ña jàngal xale moom it dafa faat waloon nañ ko rendre hommage te moom mooy ki gën a ki gën a tuuti la ñi jël concours ñëpp ki ci gën a tuuti la ab xale mooy Mbayang Daraame moomu xadi da xadi mu xadi Mbayang xaw ma nu xadi Daraame moomu ñu jàngaloon xadi moom mooy xale bi ci gën a tuuti moom ñëpp d'accord nañ ni douze ans wala onze ans la am kon waroon nañ ko faa fàttalikuwaale bu ko defee loolu day xam ne seeni moroom ñu fa nekkandoo woon lan ñu yëngu ci alxuraan jiitu leen ñu war leen a ñaanal ci kanamu président delloo leen njukkal wanee na ñooñu kat euh, euh, ëllëg bu damm ci waar la loolu dana am leneen lu mu lijjanti saa jàpp naa ne euh, kon mbokk yi lii moo doon taxaw seetlu bi nga xam ne def nañ ko ci ginnaaw bi soxna Ndaty Cissé ak bi leen président dalalee mook sëñ Seexuna Cissé